avec Info Dakar. Avec Info Dakar. Fils du Sénégal, ak foo mënti ne ci àdduna jot information yu euh, la. nekk nag conseil spécial si cabinet président Abdoulaye Daouda Diallo. Très bien. Et nous fi indi rek moy relever défi. surtout nak Dakar relever le défi de Dakar parce que nak Dakar xamoo ngeen ne si législative yeeg locale yëpp amoon na luñ fi ñàkkoon léegi nag bi ñu ñëwee tey jii ànd président Abdoulaye Daouda Diallo parrainage yi ñëw ñu wàcc na ci terrain bi seeti frustré yi seeti ñi nga xamante ne dañoo bëggoon ànd présenté mënuñoo ànd moom xamuñu woon fu ñuy jaar ñooñu ñëpp ñu récupéré leen ñëw indi teg leen ci loxo président Abdoulaye Daouda Diallo ñu parrainé au niveau de Dakar man rek. ci kuréel gi nga xamante ne maa ko ŋànkoon di ko coordonné bi ñu wàccee li ñu am yëpp on a quatre-vingt-cinq mille parrains fii au niveau de Dakar biñ ci doolee li nga xamante ne moom la président Abdoulaye Daouda collecté de son côté ci yeneen fànn ñu on est à cent cinq mille presque ci a parrainages yoo xamante ne nii c'est la région de Dakar seulement ñun ñoo ko ñëw déposé ko mu doon loo xam ne nii nag gisuma kenn ku ko fi def te lépp nag dama lay wax na ce sont ça a été des ñoo xamante ne ñooy ñëw dañoo bëgg a gis président dañ ko bëgg a parrainer am na ñu ko parrainer ñu bëri sax ñoo xamante ne toogul ak ñoom gisu leen ñu ñëw ba tey jii recevoir naa tey suba rek ay mille quelque parrain yoo xamante ne nii ci ay bonne volonté ñoo xamante ne dañ ko bëgg bëgg ko bëgg a jàppale rek moo tax ñu ñëw indi ko. waaw ah. sur l'ensemble du territoire bi dégg léegi. 447 euh, mille parrain sur l'ensemble du territoire national mu doon une chose inédite. boo xamante ne ni tey jii moom li ko waral mu am ko mooy taxawaayam rek si côté askan bi muy yaram muy euh, euh, am kóllëreem muy fonk nit gu mu fonk nit muy yëg-yëg it gu mu am ci nit parce que nit du xaalis du dara mais yëg-yëg la koo yëg rek mu yëg la forcément da lay da lay yëg mais koo ñàkk a yëg it koo cof tamit mu wadd ndax loolu olof moo ko wax. mais mooy premier loo ndax mën naa ne la bu ñu demoon fii ba saa bu ñu demee ba le douze. dina am ñeneen ñi ñëw ba fii ñu toog ci table bi am na ay parrainage yu doon ñëw duñu fekk gis ngeen orateur ah, orateur yi biñ koy wax di ko génnee di ko teg si kaw table bi. fii si Sénégal ak foo mënti nekk ci àdduna jot information yu